gis naa ko ci ben site <coughs> kooku la ñuy wax transgenre mooy koo xam la sax wala jigéen mhm. bëgg soppi boppam def ko Benen sexe beneen sexe bi mhm. euh, loolu yëpp ci ñaaw jikko la ndeysaan ak tamit euh, <clears throat> sëñ Mansour <clears throat> ñu baal ma de dafa am loo xam tam lu ñu war a xel la mhm. gis nga euh, façon nit ak comportement bu ci nekk tamit da ngay bu baax nit ko kan la Euh, fan la jóge euh, ak jaar-jaaram di nga comprendre lu bari euh, ci ay càggante ak yu baree bari kon boo tax loolu mu def dafa def loo xam ni dafa xew ci jamono tey boo demee Europe da ngay sax waaru États-Unis temps yëpp foofu débat fa nga question boobu question avortement médicalisé question PMA jur ay doom léegi chaque semaine nga dégg débat bi ci pays yooyu donc léegi kon mooy seen vrai problème mooy soppi lépp loo xam ne rek noonu la ko diinee tëralee woon Eh, ci wàllu eh, góor ak jigéen ak wàllu sëy góor ak jigéen ak wàllu famille mm-hmm. ak wàllu jikko moo tax fi nekk nii lu àdduna bi di gën a avancé dana gën di metti nag moo tax fi nekk réew jullit bu ñu organisé wul boole seen doole ah eh, agenda bi dana leen lekk benn par benn parce que réew jullit suñu bëggee topp tubaab yi ci àdduna kon tam tubaab yi foog ñu dugal li nga xam ni ñoom moom lañ gisee ni ku bëgg a nekk nit mel ni ñoom moom ngay doxal wala tey ji pays arabes yi sa yaram day daw eh, alal bi ñu am yëpp lenn rek lañ bëgg fi nekk nii mooy diir mbagg eh, tubaab yi eh, lépp loo xam ne tubaab yi dañ ko doon organiser ci wàllu noos ak yu ni mel tey fi mu nekk nii boo demee rawatina ci pays golf yi ñu ngi ko fay organiser mhm. boo jëlee même fi mu nekk nii par exemple Arabie Saoudite nga xam ni les deux lieux saints fa lañ nekk mais da nga gis ne tey ji ñi ko yor daanaka ñu ngi dindi ndànk ndank lépp loo xam ni dafa taxoon benn waaye doon na ko wax mu ne ma au moins ku bëgg a baax sax nga mën a dem màkk baax fa tuuti ak madina dellu siwaat <laughs> mais léegi waaw léegi même foofu léegi chaque jour nga dégg ci presse bi euh, ñuy dindi loo xam ni da nga naan lu tax ñu dindi ko génnewul kenn foofu euh, ma joxe benn exemple mhm. euh, temps yi la ñu wax foofu ne dafa am ay café public mhm. ah foo xam dañ fay toog nii di naan café nii et dafa nekkoon yoo xam ni amul mixité am loolu charia noonu la ko bëgge charia mhm. bëggul ixtilaat Euh, góor ak jigéen ñi ay mukalaf jaxasoo noonu ak wéet donc dañ doon wax ni café bi ay famille rek ñoo fay nekk donc nit ak soxnaam ak seen doom ñooy ñëw ñooñu rek ñoo fay nekk xam nga dafa nekk lu sain mm-hmm. lu baax ndeysaan lu yiw da ngeen ñëw toog ci café bi comme suñu genre restaurant kii ni toog commandé moom neex leen ngeen taal seen oto euh, dem léegi nag yeneen café yi nga xam ni ay célibataire mën nañ faa dem ak ay jeunes yeneen la mais xoola temps yi ñuy wax na léegi dañu def benn loi wax na léegi lu tax léegi ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy beral famille yi benn café célibataire nañ bàyyi rek ñëpp gis nga mhm. pourtant loolu du demande sociale c'est-à-dire voilà waa réew ma miin nañ ko gis ci seen bopp déranger tul déranger wu leen pour lan pour kon kon kon ñan kan ñu bëgg loolu image mhm. Europe lañ bëgg mu rafet ci ñoom seen image rafet ci force idéologique yi nekk Europe te di leen wax da ngeen tardé surtout nag gis nga jigéen mhm. da ngeen tardé surtout ci wàllu jigéen te pour ñoom tardé ci wàllu jigéen mooy tant que mayuñ jigéen fu góor toog mu toog fa Euh, jaxasoog moom et ne ko jàkk nii pour ñoom ba tey joxuñu euh, jigéen àqam te pourtant toujours dama leen ko wax ma ne su jigéen toogee ne góor ne lu tax jàpp ne dañoo tooñ jigéen bi jàpp ne dañuy tooñ góor ah waaw jigéen bu am métier def métier euh, jigéen bu bëgg jaay ci marché bi dem jaay loolu doyul déedéet doyul de waaw foog ñu am ci leneen kon nag nga gis ne agenda la gisoo LGBT plus plus boobu yu bëri la transgenre ci la bokk donc góor a góor di sëy jigéen ak jigéen ah góor boo xam ne mën na sëy ak jigéen mën na sëy ak góor jigéen boo xam ne mën na sëy mën na ak yoo xam ne tuddu ko sax laa la wax dafa doy waar mm-hmm. moo tax ñu def sax plus maanaam day yëfu seetaane amul fu mu yem mm-hmm. donc euh, sénégalais boobu waaw ndeysaan moom tamit dugg na ci yooyu mm-hmm. parce que mi ngi fréquenté ay milieu euh, yoo xam ni euh, jàpp na ni mën na fa doxal loolu jàpp ni tamit mën na cee am alalam gisoo ñu naan ndax na góor ñu bëri. Mhm. et cetera et cetera kon wàcc na àndam mais comme ni ma la ko waxee rek ka yu mel noonu tamit tant que xamuloo dëgg-dëgg tam waa ji kan la fan la bàyyee ko est-ce que Europe la dafa yàgg wala dafa jékki-jékki daw dem fa. Mhm. Euh, et cetera doo ko xam mais ci principe bi daal li ñu war a xam mooy lii yëpp mooy wane encore rek ni menace su agenda LGBT. Euh, Q plus <coughs> ngi fii man am na ay at. ay journalistes yu jigéen jógee ba Belgique ñëw fii euh, di ma defal interview dañ ma wax ne dañ may laaj parce que mm-hmm. Belgique mm-hmm. dañu gis ne léegi Sénégalais yu bëri yu fay ñëw mm-hmm. euh, di wut visa dañuy wax ne li ñu nekk góor jigéen fii moo tax mënatuñ dëkk ci réew mi hmm? voilà gis nga kon bunt la boo xam ne ku nekk fu nekk nii yaa ngi ci lijjanti li nga bëgg euh, lijjanti kon xoolal nekk fi di ko jooy tamit taxul affaire bi réglé ni ko borom xam-xam ba dam waxee xam nga naan fii dafa lëndëm fii da xam nga lu mu wax mm-hmm. taalal torche taalal nga éclairer dem sa yoon mm-hmm. mais boo fa toogee junni at fii dafa lëndëm tam ci lëndëm bi ngay dee mm-hmm. kon tam lii nii ñaawteef ñaawteef li moo wan a wane ni nañu gën a fagaru ci suñu réew pays souverain lañ wax des peuples souverains des pays souverains ñun tam ñu tëral suñu réew li fi dagan ak li fi euh, araam ak li ñu bëgg suñu famille yi ak façon yar bi ñu fi bëgg ak valeur yi ñu ci bëgg ñu tëral ko suñu réew loolu fi nekk ni ku nekk war nga ci jël sa part de responsabilité commencé ci gouvernement bi classe politique bi religieux yi sëriñ si imam yi oustaz yi éducateur jàngalekat yi euh, parents yi euh, képp koo xam ne am na koo mag war nga ko yedd taxawee ko mm-hmm. taxawaayu mag ah association yi député yi euh, élus locaux yi ku ci nekk am nga rôle boo xam ne war nga ko jouer nga participer ko ci protéger sunu réew ci euh, ñaawteef yooyu. Mm-hmm. macha allah.